amee waaw ci penc mag ña la ñuy jox cër waa ñu waxtaane ko ah mag TV maa ngi leen di béggee. mag la TV la. roñ gaaw. na ko gisandoo ñu àndax tey Ibrahima moom euh, fi mu toll nii si inondation bi am. loolu lay lay liggéey tey ñu bëgg a moom si si ndox mi liggéey liggéeyam nu muy demee. waa Ibrahima. Ibrahima liggéey bi méttiwul. ah métti na trop mais nu ñuy def xam nga suñu yaay ñoo fi nekk tamit. Mhm. di dund benn situation bi xam nga lu ñuy def il faut ñu tamit ñu jàppale mhm. leen. nànk il faut tamit ñu jàppale leen lii rek lañ mën a def pour jàppale leen. Mhm. billaahi xool états yi yëpp yëpp dañ ko yàq. mais nguur gi ba mu ñëwee si si ginnaaw fii rek la xam nga. loo xam ne tamit naa sul mais su moom bu doon sagoom kese du fi ñëw. billaahi bu doon sagoom kese du fi ñëw. Ibrahima est-ce que ce que est-ce que liggéey bi du liggéey risque ndox mi xam lu si nekk chaque jour nga nekk du risque. bilaay une semaine yàlla mu ngi ne damaa feebaroon tey laay soog a xëy tey tey laay soog a xëy une semaine yàlla ngi ne damaa feebaroon bilaay walaay affaire dafa métti. an say say waat. waa ñun suñu kër fii la dëkk fii ba alaaji paate te su ma ñëwee gaal bi laay jël. yëpp sama booy. Mhm. ñu dem ba alaaji paate. vraiment dafa métti. Mhm. métti na trop. Mhm. billaahi. Mhm. billaahi. Mhm. donc yéen li def nii. waaw waaw sunu dawal leen ndànk. waaw. parce que maanaam boo gisee ñuy ñuy def lii nii pour sunu yaay nekk ci biir ndox bi. am na ñoo xamante ni seen tànk yi mënuñu puus si biir ndox bi. ak lu nekk si biir ndox. lu nekk ci ay birig. da ngay dox ba kat yi birig wala nga dox ba dëggul leen ay war-waraan ñu ci biir ndox bi. te amul nit amul fooy mënti dem te doo xuus mënul nekk. bi ñaata ñaata. ay ah pare saa yi ba neex di nga mën a am faral ay quinze mille ak yooyu wala waaw wala ay dix mille waaw. booy ma laaj leen. man maa ngi tudd Pape Lawbe. lan moo tax nga dugg si liggéey bi. man liggéey damaa bëgg jàppale kii yu nekk kon maire yi ak affaire yooyu mhm, mhm. ba si démb rek jàppale maire yi moo tax ma guddee sama yaay wër ma sama papa wër ma. Mhm. xam loolu du yoon quoi. mu ñëw fi war a xool ndox mi ne ñoom ñu daw mhm. mhm. xam loolu du yoon quoi mhm. mais affaire ñu daal ñu ngi nan monsieur le mu dimbali ñu suñ ndox mi parce nañ suñ maire sax duñ génn ba si keroog suñ koñ am na benn maire boo xam ne billaay xam fa fanaan si école ndeysaan barki yàlla maire amul si école lay fanaan loolu lañ la amoon dama laa si ko Euh, ka ñu jox sa beneen sa beneen booy bi yow booy noo tudd. ayu ayu yow lan moo la dugal si liggéey bi. liggéey bi. Mm-hmm. daa am ñoo daa am ñoo xam ne fii ci mën nañu yaay ñu. Mm-hmm. loolu moo ñu état suñu koñ. ñëpp a génn. Mm-hmm. seetoon koñ. ñëpp a génn ñëpp ñëpp. kenn desul. suñu seetoon koñ ñëpp a génn kenn desul. daañu dinaa amal kër te yow nga nekk xale nga nekk xale yow est-ce que liggéey bii nekkul liggéey boo xam risque la si yow. déedéet. Hmm. léegi yow lan lan lan lan moo la si dugal. Ah? lan moo si dugal. Mhm. Mhm. nga nekk xale bu ndaw nga xool ne say yaay nekk nañ si coono. nga ne xaar ma dugal si liggéey bi. waaw ndeysaan. waaw loolu waaw Ibrahima. ngay nga àndax booy ñu nekk say booy. Mhm, est-ce que loolu aussi du risque si ñoom. Ah. dina métti nag dina doon risque doon risque parce que. mënul mhm. ñàkk. Mhm. parce que dañuy xëy di dugg si ndox mi tout le mhm. xam nga rek bala maa kii il faut mu ànd ak ñoom. ñoom tamit am weccet. xam mun a faj seen yenn soxla yi. parce que booy dañuy faral di def ay football ak yenn affaire yooyu. wala ay ma affaire yooyu. xam nga wala waajal paasal waajal waajal paasu maagal ak. ban message ngay lancé euh, peuple sénégalais ban message ngay lancé. ma maa ngi sunu maire bi moom. Mhm. vraiment ah néew ma du néew ma maire ma maire du maire waaye. Mhm. ndurul sax maire. Mhm. maire bu jàngul moom. sunu maire bi de kii di def sim de moo gën a jàng. booy ñoo gën a jàng. dañoo tuutal. parce que dañ ko dem ba éviter éviter ko télé. pour mu wax. mu nekk di jaxase. xamul sax ku yor wàllu ndox. loolu dañoo rusloo. taxaw leen fii taxaw leen. Mhm. xam nga mhm. vraiment loolu métti na. Mhm. tey ñun daal ñu ngi ñaan yàlla. yàlla jëlal ñu fi Macky Sall ba ñuy gis koo xamante ne mun nañu dimbali. parce que Macky mii ma gis parewul pour ñu dimbali. ba muy ñëw fii indaale fii ay maire yoo xamante ne ñu ngi ñaaw ba bëgg a rek kenn xamul lu ñuy nduróol. ñu ñëw fii di yuuxu ñu foog na ñun ñooy yuuxu. ah loolu moom c'est pas normal loolu duñ ko nangu de. tey jii tey jii nga nekk jeune nga toll war a liggéey et nga nekk si ndox mi tey lan ngay ban ban message ngay lancé. ban message ngay lancé pour que ñu jàppale la et ah man de maa ñaan li waaye mën a ñëw jàppale ñu. Mhm. maa ngay ñaan li waaye mën a jàppale dañu jàppale. parce que mhm. ndox bi vraiment sonn nañ si lool. Mhm. man maa ngi depuis une semaine damaa feebaroon kenn xamul ñaar xaalis laa fere si sama feebar. mais vraiment nag maa ngi sant yàlla comme que maa ngi tane bay wax nii gisoo sama yaram bi yëpp ay picc yooyu garaaw yoo xamante ni mooy loolu mhm. mais maa ngi sant yàlla daal mhm. waaw maa ngi sant doolu sant yàlla bu baax mhm. di leen ñaan yàlla yéen tamit yàlla defal jàmm amiin amiin bëgg moom yal na leen ko suñu borom amiin yaa rabbi laa amiin loo loo loo si dool di booy mooy nañuy dimbali te xam ne sonn nañu billaa ak insu boo duggoon suñu koñ billaa da nga yéemu barki yàlla nañu dimbali quoi gis ay affaire yu nekk si si yoo si télé di wax amul benn sens. Mm-hmm. en tout cas. Mm-hmm. xam na lañuy ñuy wax. Mm-hmm. kii wax di jëf. moo dara def waaye di wax après te doo jëf. baaxul booy bi sax di buux gaal seen waa kër na génn dañ leen aal ko. ndeysaan. dimbal nag sonn nañ mbokk yi yéen ko gisandoo yéen a gisoo tey ñu àndaloo ki nga xam ne mooy Ibrahima. moom muy yëngu si nga xam ne ñoom ñooy aider nit ñi ñu traversé fii si Kër Massar lii nag la ñuy dund chaque jour lii nag euh, metti na si si si si si si gis-gis metti na vraiment ñuy ñaan képp euh, ñuy ñaan Macky Sall mu dimbali leen ngir yàlla di mu jëlee leen lii nga xam ne mooy ndox mi gars yi dinañ di leen jox di beneen émission. TV forever su waxtaan amee waaw ci penc mag nga la ñuy jox ci ruwaay ñu waxtaane ko ah mag TV mag leen di béggee. mag la TV la. roñ muy gaaw.